nee na mi ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa di kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul di ko ñaanal yàlla defal ko fan wu gudd ak wér yéene jim am ci liggéeyal lislaam am ko ci liggéeyal yoon wi am ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa yàlla bàyyi ko fi boom mu eggale ko di ci teg suñu kilifa di kilifa barab bi di kilifa ak kër gi sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom Sëriñ Saalihu xam ne li ñuy def lépp moom lañ koy defal nee na moom ñu ngi koy nuyu di ko siyaare di ko ñaanal li mu ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa yàgg feeg wér eggale liggéey bi di ndokkeel nag mboolem jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ci bis bii di bisub di bisub ay ki ayit gi nee na mi ngi si nuyu ñëpp di ci ndokkeel ñëpp waaw nee na bis bi ni ko ni ko jàngee ci xutba bi ni ko sëriñ bi waxee ci bis bi yo bis bii bisu feet la ci bépp jullit boo xamante ni ku gëm yàlla da ko taxee dellu waxaat ci ne bis bii bisub lekk la ak naan ak goreel jaam ndax feet la kon nag mi ngi ci ndokkeel jullit ñëpp ci feet googu feet gu réy gi nga xam ne moom la suñu borom defal tey bi delluwaat ci li nga xam ne moom leen jógee nag ba yegg ci bis bi muy koor gi koor nag yàlla na ko wàcceel nun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa na mu ko na ko waxee ca aaya ba na mu ko waxee ca aaya ba ne nga xam ni da ngeen a gëm war waral nañ ci yéen koor comme niñ ko waral ci ne leen ñi leen jiitu woon ndax lee bokk ngeen ragal yàlla nga xam ni koor kon day jur ragal yàlla ah nga xam ni kon solos koor lépp rek mooy loolu mooy mooy résultat bi bëgg nekk ni ñi ragal yàlla ragal yàlla nag mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi rek waaw imtisaalul awaamir wa tinaabu nawaahi mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi lool rek mooy ragal yàlla loolu it moo doon mission yeneen yi fi jiitu yoon yëpp it ñoom ñoom ñëpp loolu dong la ñu andi woon. dénk nañ ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ak yéen dénk nañ leen ngeen ragal yàlla. ba yàlla yónnee sunu maam Adama ak yonent bi yónni ba mu egsi Sayyidina Muhammad seen mission yëpp mooy di ci nit ñi taqwa ragal yàlla rek kon nag ginnaaw noo ngi jóge noo ngi jóge jóge ci koor eh, góor nañ suñ kem kàttan ba ni ko yàlla diglee def na ci li nu man lépp noo ngi ñaan sunu borom mu nangul nu ko te def ñu yàgg koo teewe te nu lu ba ni nekke woon ci koor gi ci moytandiku nu fexe ba wéeru ko ci weer yi yëpp mu bañ a doon weeru koor rek képp waaye ni ñu góorgóorloo woon ci biir weer wi ci def ndigal yi ak bàyyi yi ak di moytandiku yu bari nu continuer noonu bañ ko yemale ci weeru koor yi ba weer wi del siwaat ndax loolu mooy résultat bi looloo tax muy am njariñ waaw ginnaaw la'allakum tattaquuna la kon boo ca génnee rek daal di cay génn kon day mel ni koor gi jurul la dara waaw ngi ñaan rek sunu borom nangul ni sunu koor bàyyi nu fi ban defaat ko yeneen ati at yu bari te mu dimbali nu ci ba ni mu nu digal nu sax ci lim nu tere nu di ko bàyyi te loolu mu jàppandal ko ci noonu ban man ko lool du doon loo xam ne dañ ci doon dañ ciy takalluf benn coono waaye mu jàppandalal nu ko ba nga xam ne day yomb ci noonu ndax ku ko yombalal rek mu yomb la. waaw bis bi ñu daan fàttali mooy zakatul fitri. sadaqa wax naa dañoo jotee naa leen ko biig danañ ko fàttali daa war a jiitu julli gi muy muuri koor yi moom lay wax dafa war a jiitu julli gi waaye bu xasee julli ba noppi sadaqatum mina sadaqaat ab sarax la rek waaye muuri koor daa war a jiitu julli waaw loolu ñu ñu bàyyi ko xel waaw. waaw xam naa dara jëru ci teg nag xanaa ñaanal la rek xanaa ñaanal la sunu borom may la fan wu gudd ba mission bii ñu la teg nga mën ko attan ko te mu woyof tooy yi ci yow ci kattanuk borom bi ñaanal kilifa kër gi Serigne Cheikh ñaanal kilifa ak yoon wi Serigne Mountakha yéen ñëpp suñu borom bàyyi leen fi te bàyyi nu fi noonu ci seen ginnaaw ñu leen jàppale ci ndi eh, ci ci liggéey bi ndax kat ab sëriñ moom bu dee bu dee ci moom dong kat du man dara xanaa diggam ak yàlla waaye diggante mi du ma dara waaye donga yi nag ñoo mën nekk seen gannaaw donga yi yàlla neen li li yàlla di may sëriñ si bañ mën a wéy yàlla na ko may dongo yi muy gudd fan ak wér ak wërsëg wu yaatu bañ man leen a jàppale te may nu pas-pasu jàppale leen ci barkab sëñ Tuubaa loolu rek la ñuy ñaan amul dara amu dara lu ci tegaat sa wax ji moom matale na ndax naa nuyu kilifa yi fi nekk rek sëñ Ousmane Mbacke mi ak sëñ Abdoulaye Mbacke moom suñu mbootu baati xarit